asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ñëwaat nañ tey ci seen euh, vidéo numéro 9 ci cours bi di PHP en développement web 3 euh, tey nag ñu ñëw war a gis lu ñuy wax fonction yi maanaam fonction ci PHP euh, maanaam dooley PHP nag mu ngi bàyyi ko ci fonction yi moom loolu moom lu mat a xam la PHP am na plus de mille fonctions yoo xam ne euh, dafa ànd ak langage bi ay fonctions intégrées lañ koy wax yoo xam ne du yow mi programme yaa ko créé waaye PHP la àndal fonctions yi nga xam ne nag yow yaa koy euh, euh, créé yow mi nga xamante yow yaay bi utiliser langage kon bu weesoo fonctions yi nga xamante ni PHP moo ko moomal boppam maanaam mooy fonction intégrée yi yow mën nga créer say propres fonctions waaw fonction nag soo ko déggee mooy benn bloc d'instruction la bu ndaw boo xam ne mën nga ko euh, utiliser ay yoon ci ci biir programme bi maanaam benn bloc bu ndaw booy créer def benn code boo xam ne saa yoon la neexee rek mën nga ko mën nga ko euh, jëfandikoo fonction nag du exécuté wu maanaam restriction bloc bloc bloc boobu maanaam fonction am nga bloc la mais bloc boobu du da ngay ibi page bi rek mu exécuté wu immédiatement déedéet il faut nga nga nga woo ko maanaam fonction da nga koy da nga koy woo donc bépp fonction dafa exécuté exécuté wu maanaam bu fekkente ne woo nga fonction bi kon ngeen jàpp rek ne am nay fonction yoo xam ni PHP moo ko créé boppam maanaam yooyu ci langage bi la ànd yooyu mën nañ plus de mille fonctions waaye am nay fonction yoo xam ni yow mi en tant que utilisateur yow yaa koy yow yaa koy kon li ngay jàpp mooy bu dee fonction yi nga xamante nii yow yaa koy créé déjà da xam ni fonction benn bloc la bu ndaw bloc d'instruction bu ndaw boo xam ne mën nga ko utiliser saa yu la neexee ci biir programme bi waaye mënul exécuté wu tant que woowoo ko il faut nga woo fonction bi pour que fonction mën a exécuté wu kon loolu moom lañuy wax fii une fonction sera exécutée par un appel appel de fon appel à la fonction soo ko woowee rek mu daal di mu daal di exécuté wu léegi nag naka la ñuy créer fonction pour nga déclarer benn fonction il faut nga def moo bi di function function syntaxe baa ngi nii da def function nga def turu fonction bi après nga ibbi ñaari parenthèse li mooy paramètre rek ngeen ñuy wax paramètre ñaari parenthèse fii la fonction bi tàmbalee fii la fonction bi yam maanaam ci diggante ñaari accolades yi nag mooy bloc d'instruction bi fi ngay def lépp loo xam ne mooy code bi war a nekk biir fonction manaam lan la fonction bi war a def fii lay nekk nag bu boobaa kon exemple su ma doon créer benn fonction bu tudd UVS damay def fonction fonction UVS UVS mooy turu fonction bi waaw pour ñu xam ne fonction yi il faut mu am nom bi di function donc ma parenthèse bi tëjaat ko léegi fii la fonction bi tàmbalee mooy accolade bi léegi nag fii la fonction bi di jeexee beneen accolade boobu fermaat donc fii ci biir nag fii laay def lépp lu ma bëgg fonction bi def ko léegi su ma paree su ma bëggee fonction bi exécuté wu damay ñëw woo fonction bi ni nga koy woowee turam ak parenthèse rek jeex na woo naa fonction bi noonu kese la ñuy woowee kon kon fonction kon ngeen gis ne euh, turu fonction nag boo koy créer mën na commencer par lettre wala sax benn trait de soulignement waaye mënta commencer par nombre mënta ne mën naa def nii mën naa commencer par tiret nii suma ma neexoon voilà tiret UVS wala genre yooyu donc mais mënut commencé commencer par nombre quoi kon loolu aussi ngeen jàpp ko ci ci ci ci règle yi la yi la bokk quoi donc saa yooy créer fonction nag dañ lay dañu tàmm nga nga joxe turu turu buy refléter li ngay def par exemple su fekkee fonction buy def euh, somme de deux entiers mën nga mënoon naa ñëw par exemple ma jox ko tur bu tudd fonction somme entier nga xam noo bi dafay dafay dafay significatif daal waaw parce que dama bëgg créer fonction boo xamante ni li muy def mooy la somme de deux entiers donc boo booy jox sa fonction tour mën nga ko tuddee somme entier d'accord loolu leer na le d'une fonction est insensible à la casse gis nga fii insensible maanaam tey jii ma créé fonction boo xam nom bi UVS en majuscule wala UVS en minuscule yépp moom day jàpp ne UVS la rek kon noo tur fonction mën nga ko bindee lu la neex majuscule wala minuscule soo ko bindee majuscule mën nga ko woowee en minuscule soo ko bindee minuscule mën nga ko majuscule ndax moom du xool ndax majuscule wala minuscule l'essentiel na noo yi nekk benn rek quoi parce que c'est insensible à la casse kon loolu itam euh, leer na léegi ñu leeral fii kon ci création fonction bi ci exemple bi dañ leen wan euh, fonction boo xam mi ngi tudd write message li mooy turu fonction donc gis ne dañoo def function def fonction bi mooy write message après daal def paramètre mooy ñaari parenthèse donc accolade bi nga xam ne moom mooy lañu wax accolade mooy buy ubbi moom mooy wane ni yaa ngi tàmbali code fonction bi donc mooy accolade bi bi mooy war yaa ngi commencé bind code fonction bi beneen accolade bi maanaam accolade fermante mooy wane ne fonction bi jeex na mooy accolade bi donc pour nga créer fonction da ngay def function def turu fonction bi def paramètres yi paramètres yi nekk parenthèse wala argument mën nañu ko wax paramètre mën nañu ko wax argument donc fii la fonction bi code fonction bi tàmbalee fii la code fonction bi jeexee léegi nag fonction bi bii nag la lay def mooy dafay affiché rek bonjour tout le monde kon créé naa benn fonction buy afficher bonjour tout le monde loolu rek la fonction bi di def gis nga on la fonction affiche bonjour tout le monde waaye pour nga woo fonction bi l'appel la fonction sa la l'appel de la fonction fii dañoo juum sa fait la ñu war a def par son nom donc appel booy woo fonction da nga koy woo ak turam mais bul fàtte ne day amaale argument yi même su fekkee argument yi vite la sax da koy amaat donc li mooy appel de la fonction da ngay def turu fonction bi def parenthèse yi point virgule nga yaakaar naa leer na ci misaal xaaral ñu ñëw par exemple euh, ñu créé fonction bi tuddee que write write message donc lan la fonction bi di def écho bonjour les enfants gis nga léegi gis nga fii par exemple tey am naa fonction bi léegi xaar ñu dem xool résultat gis nga doo gis dara parce que fonction bi il faut nga woo ko soo ko woowee nag ci lay soog a exécuté wu donc nan laay woowee fonction bi damay copier nom bi ak paramètre nii mais ci biti damay génn fonction bi carrément nag ba pare nii waaw ah, kay so gis nga nii la ngay woowee fonction bi soo ko woowee rek dafay ñëw dugg fii daal di fonction bi mooy afficher bonjour les enfants donc soo exécuter gis nga ne exécuter na fonction kon loolu leer na léegi nag lan mooy argument xam nga fii dañoo am fonction boo xam entre parenthèses yi dafa vide ndax mooy fonction boo xam ne argument yi dafa vide amul argument y a rien à l'intérieur des parenthèses mooy argument yi dafa vide waaye euh, mën nga yónnee wàlle information ci fonction bi par ay argument argument comme variable la rek argument comme variable par exemple gis ngeen fii fonction bi def na fonction li mooy turu fonction bi mais au lieu que may def parenthèse vide mais dafa amaale variable ci biir donc lii may wax argument sànq bi ñu créé woon argument vide la woon bii nag argument bu am variable ci biir la loolu loolu la ñu wax argument donc mën nga yónnee wàlle information fonction bi kon par les par des arguments donc loolu mooy loolu la ñuy wax argument lii argument nag comme variable la rek ngeen ngeen jàppee ko loolu argument yi yaa ngi leen di def après turu fonction bi ci entre parenthèses à l'intérieur des parenthèses kenn ngeen jàpp loolu donc mën ngeen yokk argument yu bari waaye ngeen séparer leen par des virgules par exemple mën naa def fi euh, argument dollar x benn argument la soo bëggee yokk beneen argument mën na par exemple dollar rek mën naa def autant d'argument waaye bu boobaa su may woo sama fonction faa nga ma joxaale ak argument yi parce que dafa am argument nekkul nekkul fonction sans argument mais fonction avec argument la donc fonction bi write message bi dafa ànd ak deux arguments voilà léegi euh, mën nga créer autant d' arguments mais nga séparer leen par des virgules mooy comme li ñu def léegi kii kii joxe na benn exemple function ufr sat ufr euh, name dollar username écho UFR gis nga variable bi lay affiché léegi variable bi nan nga koy joxe valeur mooy soy woo fonction bi da koy jox valeur donc sat fii day mel ne sat moo fi nekk bu boobaa kon fonction bi dafay dugg fi dal di affiché UFR sat xaaral ñu xool ñu def benn exemple euh, def dollar fii ma jox nom léegi ma daal def bonjour dollar nom léegi fii li ma bëgg mooy su may woo argument bi ma jox benn tur par exemple Chérif que gis nga write message dafa am argument kon kon soo koy woo day xaar nga joxaale ko valeur variable bi donc léegi gis nga su ko joxee write Mm-hmm. message Chérif bi ma koy woo jox naa ko Chérif kon day remplacer lii par Chérif après mu dugg fi def bonjour Chérif ñu enregistré bonjour Chérif donc loolu mooy argument mën naa yokk aussi beneen non virgule euh, dollar prénom prénom wala xaaral ma inversé leen dollar prénom dollar nom donc toujours da koy séparer par des virgule donc fii sama fonction am na ñaari argument prénom ak nom donc moo bëgg mu afficher moom bonjour mu njëkk affiche sama prénom prénom après ma def espace ma def ma affiché nom bi dollar nom kon dama bëgg mu affiché ma prénom ak nom kon gis nga bonjour day def prénom bi ak nom bi kon boo koy woo fonction bi da nga koy jox prénom virgule jox jox ko tamit nom bi Chérif lii par exemple voilà donc day jël Chérif bi remplacé ko par variable bi. li bi remplace par variable bi comme ça buy affiché buy dugg di exécuter fonction bi def bonjour Chérif li nga def exécuter voilà gis nga ni loolu mooy argument yi loolu aussi nekk na lu lu am solo lu lu mat a bàyyi xel ah voilà léegi nag beneen fonction bi euh, bi ngeen ni war a xam itam mooy valeur par défaut d'un paramètre xam nga sànq jàngeen variable maanaam fonction bu am bu amul paramètre mooy boo xam ne parenthèse day vide ak boo xam ne am na benn paramètre plusieurs léegi nag bi ñu leen di jàngal fonction boo xam ni paramètre bi day amaale valeur par défaut daal day amaale valeur euh, exemple bi ñu leen di wan daf leen di wan naka ngeen di jëfandikoo paramètre boo am valeur par défaut sooy woo benn fonction par exemple bi set na sans argument gis nga bii boo amul argument nii set na mooy mooy amul dara ci biir dafay jël euh, valeur par défaut comme nii am fii li muy expliqué li muy mi expliqué mooy par exemple dollar prénom égal par exemple ma def Chérif gis nga fi dama créer argument bi mais joxale ko benn valeur par défaut valeur boo xam moom lay àndal léegi su ma ñëwee fii ma woo sama fonction gis nga ko te joxuma ko paramètre yaa ngi gis xam nga fii joxuma ko paramètre te pourtant mi ngi doon xaar valeur mais puisque paramètre bi amaal na valeur par défaut su ma ko joxul valeur valeur par défaut bi rek lay utiliser donc moo tax fii boo actualisé erreur erreur ok fii la voilà donc boo ñëwee donc gis nga ni valeur par défaut bi la jël parce que bi ma kay woo xam nga fekkonte ni amul lii donc il faut jox ko valeur mais am na valeur par défaut ba pare donc soo ko joxul valeur tamit valeur par défaut bii rek lay utiliser mais su ma ko joxee valeur nag dootu utiliser valeur par référence bu nga jox Amadou léegi Amadou bi lay jël day ignorer léegi valeur par défaut bi dootu ko jël am actualiser gis nga bonjour Amadou la def donc kon nga gis ne sooy créer fonction boo xam ne paramètre bi dafa ànd ak valeur par défaut soo koy woo soo ko joxul valeur soo ko joxul valeur kon valeur bi par défaut lay lay lay lay jëfandikoo mais soo ko joxee valeur nag valeur bi nga ko jox lay jëfandikoo mais su fekkente ne amul woon valeur par défaut nii soo ko woowee nag te joxoo ko valeur fii day am problème moom day xaar fii valeur day xaar valeur donc ko valeur su fekkee bi nga koy créer am na nag valeur par défaut donc même soo ko joxul valeur sax valeur par défaut bi lay utiliser bu ko defee foofu du am benn jafe-jafe yaakaar naa ci wàllu fonction yi donc beneen exemple la nii euh, fonction boo xam ne dafa am day retourner valeur léegi day retourner valeur par exemple par exemple gis nga fii am nañ fonction boo xam ne x ak y la am comme paramètre donc xaaral ñu ñu xool fonction bi fonction somme donc fonction buy avec type de retour ah muy benn valeur yi ñu xool gis nga fii am na fonction somme somme mooy sama tur fonction am na ñaari paramètre x ak y léegi nag lan laa bëgg mu retourneel ma la somme de x plus ci benn variable bi z donc x plus y donc fii ma créé dollar z est dollar x plus dollar y la somme de ces deux là léegi nag à la ma def return dollar z donc li mooy fonction buy retourner dara à donc il faut day am mot bii di return donc résultat résultat somme bi lay war retourner léegi ñu ñëw fii ñëw fii. won leen léegi ñu woo fonction bi mais puisque fonction bu retourné dara la da ngay def écho par exemple cinq plus dix égale cinq plus dix égale nga def gis nga lii dama woo fonction bi jox ko ñaari valeur waaw lii pour boole la quoi day def cinq plus dix après mu affiché dem woo fonction bi calculer parce que comme que retourné woon na valeur bi donc fi ngay amee valeur bi automatiquement donc moo tax day am voilà cinq plus 10 égale à 15 parce que 15 bii moom la retourné woon bi muy génn ci fonction bi waaw maanaam somme lay retourné quoi donc lii dafay retourné dara donc limite il faut nga nga jox ko kenn ma jox la beneen exemple bu gën a par exemple su ma neexoon ma def euh, ma ñëw fii ma def dollar résultat égal ma def moom ma woo fonction bi ma woo fonction bi joxaale ka ñaari valeurs mooy par exemple ma jox six ak cinq donc dafay def la somme de cinq plus six résultat bi mu jox ko variable bi léegi nag su ma neexee ma affiché echo dollar résultat voilà mu ñëw affiché résultat bi donc donc kii à la xam nga retourné woon na dara donc bu retourné dara donc moo tax ngay def ngay ngay jox bu defee bu woowee fonction ba pare li mu trouvé fan la koy retourné nga gis nga fii la koy retourné après nga soog a affiché variable boobu nga gis ne onze la voilà donc en résumé jàng ngeen fonction sans argument mooy fonction bu amul argument exemple euh, exemple nga def ak ñaari parenthèse ni yu vide jàngeen fonction avec un, argument mooy koo xam ne ci biir parenthèse bi day am benn variable exemple la x jàngeen fonction fonction avec plusieurs arguments plusieurs arguments mooy bi am ay variables yu bare mën nga def x virgule y mën ngay sax defaat virgule encore yokkaat beneen argument z mën nga am autant d'arguments yi nga bëgg mooy plusieurs arguments jàngeen aussi fonction avec argument buy am valeur par défaut am valeur par défaut par exemple nga ñëw dollar x égale 9 argument bi day nga joxaale valeur jàngeen aussi fonction buy retourner retourne benn valeur donc ci biir fonction bi day am la valeur return à la fin pour retourner benn valeur donc yii mooy fonction yi nga xam ne utilisateur bi mën na ko créer donc type de fonction yi yëpp day am solo lool pour ngeen comprendre ko dina ñëwaat incha allah pour def yeneen exercice bu bu bu cours yi jeexee euh, ngir résumer li nga xamante ne moom lañ jot a jàll yëpp daal incha allah kon yaakaar na ci wàllu fonction yi loolu la woon euh, avant ñuy attaqué euh, tableau yi voilà donc yooyu mooy i ñu leen waroon a wan tey ci wàllu fonction yi kon ñu leen jox daje ci seen beneen vidéo ba tey ngir mën a dugg ci tableau yi